asalaamaaleykum daleen nag jàmm ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool tey jilee li leen gën a soxal mooy waxtaane ñu wàllu ger gi ak gan gi nga xam ne moo dugg suñu réew jëmale ci wàllu mbas mi dañu koy door ak Sud Quotidien ëttu yéenekaay bu groupe Sud Communication di ñu xamal ne Sénégal fa mu newoon jugu fa te foofu daal gënool jëmale ci wàllu guerre bu ñu sukkandikoo ci waa Transparency International bi doon siiwal démb rapport atum 2020 bu li ñu duppee indice de perception de la corruption boobu la gëstu wane ne dëkk yu bari ci àdduna wërngal këpp daal defuñu benn jéego jëmale ci xeex wàllu guerre bi ci diirub fukki at rawatina suñu réew ndax Sénégal ci téeméer boo jël mi ngi ci ñeent fukk ak juróom yi te loolu baaxul benn yoon te bougé wu fa meetar ci atum 2015 ba tey jilee Sud Quotidien li ko si jaaxal nag mooy kilifa yi ci boppam ñoo wonewul benn cawarte wala def jéego jëm ci xeex wàllu ger gi yorin wu sellul li ci gën a fës nag daal mooy ñenn ñi ñu leen di baal tuuxi dëna yu ñuy def ci loolu la ñuy des ak coordonnateur bu forum civil di Birahim seek mi ngi sàkku ci njiitu réew mi mu dakkal loolu le rawatina nag ci koppar gi nga xam ne askan wi moo ko moom li ni melit soxal waa laas ne Sénégal daal dafa gën a nërmeelu ci place bi mu newoon ci atum 2020 bi Sénégal deful benn jéego ndax ger googule moo ñu war a yilif ki samp boobule laaj nag mooy waa 24 heures Birahim Seck di ñaan njiitu réew mi mu fexe ba ñu leeral bu baax a baax koppar bi ñu dugal ci wàllu xeex mbëkk mi ak it fexe ba jëfe ndénkaane yi nga xam ne kuréel bi ñu fi tegoon ngir mu saytu wàllu doxalinu yoon suñu réew te moom moomule di président Macky Sall sampoon ko fii Birahim Seck yemu fa mu ngi it soññ procureur bi mu fexe ba xamal askan wi lan moo ne ci dëgg-dëgg dossier yi nga xam ne moom la leen CENTIF OFNAC wala IGE di jox ñu jàll ci leneen li nga xam ne it ëttu yéenekaay yi ñu xëyandool waxtaane nañu ko mu jëm ci wàllu mbas mi virus bu yees bi nga xam ne moom lañ gis fële ci Angleterre yegsi na ci suñu réew bu ñu sukkandikoo ci libération lii ñu duppee variant britannique jëmale ci wàllu mbas mi nag moo gën a gaaw li muy wàllaate te gën a gaaw it li muy fàtti ba kenn bu ñu sukkandikoo ci le soleil bi jox kàddu gi professeur Souleymane Mbuub xelam màcc loolu jëm ci wàllu virus yi di directeur bu IRESSEF ginnaaw gi mu joxe bi xibaar nag mi ngi soññ askan wi ñu fexe sàmmonteeg dicté yi nga xam ne mooy bawoo ci kër docteur ci xeex mbas mi feññeent bu bees bi nga xam ne moo ànd ak mbas mi le ganesi na suñu réew bu ñu sukkandikoo ci vox populi boobule gan du kenn ku ko soxla fii ci ndakaaru lañ ko nemmeeku te ki ko amee woon ab doomu Inde la Sénégal am na tontoom ci lan moo waral law bu gaaw bi mbas mi di law ak wàllaate bu gaaw bi le ñu nemmeeku ko ci ndorteelu at wi tiit ci boppam la sénégalais yi def ak virus bi nga xam ne ci Angleterre la feeñee bu ñu sukkandikoo ci lii quotidien virus bu njëkk ba lu mu def rek virus bi la def na lu ko raw ñaari yoon ndax loolu war na tax ñu tiit ki samp boobu boobule laaj mooy réew mi quotidien tontu it ci laajam nee na déedéet ndax gisul njëriñam li war kay mooy ñu fexe ba askan wi sàmmoon sàmmonteeg mesures yi nga xam ne moom lañ jël ngir xeex mbas mi ak lu mun a am l'observateur di xamle ne daal li mu ñi ci ñàkk seen bakkan bëri na lool ndax ci juróom ñaax fukki fan ak juróom-ñett ñaari téeméeri doomi aadama ak ñeent ñoo ci ñàkk seen bakkan l'observateur dem ci sëgu Touba Yoff Saint-Lazare ak Tolpero amal fa ab gëstu limu ñi ñu fay rob dafa yokk ñaari yoon donte benn virus bu yees la ñu wax ne moo gën a si réew mi l'observateur di xamle ne du benn rek ñeent lañu ñu l'enquête it mbas mi soxal ko lool ba mu jagleel ko pàcc bu yaatoo yaatu tey jilee rawatina nag fële ci université ab jaaxle la fa indi professeur Ibrahima Daly Diouf bokk ci fasek moom nee na nguur gi daal dafa war a def kiim kàttanam ndax bu dul loolu rek fu ñu jëm ak mbas mi du am ndox ñu xamal ne Sénégal mooy juróom-ñeenteelu réew ci l'Afrique boo xam ne daal doxalinam ci wàllu mbas mi lu mu ci ayib la ci àdduna wërngal këpp nag Sénégal moo nekk ci fanweer ak juróom-benneelu place ba tribune di ñu waxtaanee mbas mi rawatina l'accident yi nga xam ne nag ñu ngi fàtti bakkan bu baax a baax ci ñaari bés ñaar fukki doomi aadama ak juróom-benn ñàq nañu seen bakkan benn l'accident bu métti moo faat bakkanu fukki doomi aadama Covid gi moom fukki doomi aadama ak ñett ca xodda ba bilang bi mi ngi toll ci ñetti doomi aadama yu ñàq seen bakkan ca tuubaatul directeur benn école mbas mi moo ko yóbbu ñaari jàngalekat it amee doomu jàngoro bi moo tax dakkal lañu njàngale mi ak Les waxtaanee bi waxtaane Augustin Senghor bi bugg a jiite CAF loolu nag weetu ca ndax président Macky Sall mi ngi ko cay jàppale bu baax a baax ministre Matar Ba Abdoulaye Sow ak ambassadeur bi di El Hadj Diouf da leen yebal démb ca Mauritanie maître Aïssata Tall Sall moom it desu ca gannaaw Gambie ak Guinée-Bissau moom xam nañ ne ba noppi ne maître Augustin Senghor la ñu àndal Maroc waxagul lu leer Mali it xelam a ngi jiixi jaaxa Sadd bii waxtaanee wàllu Sadio tax na bu Liverpool def jéego bu am solo yeewul ci nelaw gi nga xam ne ci la ne woon ñu jeexale kook sunu lomb bi waxtaanee Balla ak Modou ca Pikine Balla Gaye 2 daan na fa juróom benn mbër ca fas nag Modou di doomu Parcelles Assainies bii nag moom moom it daan na fa ñeenti mbër lii moo gënoon a fës ci ëttu yéenekaay ñu xëyandool ñu yendoog jàmm Bonjour. La presse parue en ce vendredi 29 janvier 2021 nous parle essentiellement de la corruption et du variant britannique détecté au Sénégal. Indice de perception de la corruption 2020, le Sénégal toujours dans la zone rouge. C'est le titre qui barre la une du quotidien du groupe Sud Communication Sud Quotidien. Le Sénégal refuse de quitter la zone rouge, souligne le confrère, qui informe par ailleurs que Transparency International a procédé hier jeudi mercredi à la publication du rapport 2020 de l'indice de perception de la corruption. Et selon les résultats de cette étude, la plupart des pays n'ont guère progressé dans la lutte contre la corruption en plus de 10 ans. Le confrère de l'avenue Bourguiba soutient qu'en plus, deux tiers des pays ont un score inférieur à L'analyse de ce rapport montre également que le score de notre pays a cessé de progresser depuis 2015. Il conserve sa sous-moyenne de 45 sur 100 et ceci Depuis cinq années, Sud Quotidien relève la faible volonté politique dans la lutte contre la corruption, la malgouvernance et l'accroissement de l'impunité. À ce propos, Birahim Seck, le coordonnateur du Forum civil, invite le chef de l'État à cesser d'entretenir une impunité affirmée et voulue sur des dossiers qui intéressent la gestion des ressources des contribuables sénégalais. Le Sénégal s'embourbe dans la zone rouge, informe l'AS. Par cette année nous satisfaisant, y compris pour le Sénégal qui stagne dans la zone rouge. La corruption doit-elle nous gouverner s'interroge heures. Dans ces colonnes, Birahim Seck du Forum civil demande au chef de l'État de faire toute la lumière sur les fonds injectés dans la lutte contre l'immigration irrégulière et de donner suite aux fortes recommandations du comité de concertation et de modernisation de la justice qu'il a lui-même mise en place. Au procureur de la République, Birahim Seck demande de rendre compte au peuple sénégalais de tous les dossiers transmis par les corps de contrôle, à savoir la CENTIF, l'OFNAC et l'IGE. Passons à l'autre sujet qui intéresse la presse du jour. à savoir la variante britannique de la COVID-19 détectée au Sénégal. Elle est là, selon Libération. Le prélèvement effectué depuis le 30 décembre a livré ses secrets après le séquençage de plusieurs échantillons. Le cas avait été détecté sur la petite côte, le patient déclaré guéri. Ce variant britannique est 50 à 70 fois plus contagieux et 30 à 40% plus létal que la souche originelle. informe le Soleil qui donne la parole au professeur Souleymane Mboup, virologue et directeur de l'IRSF. qui, après avoir donné cette nouvelle, a invité les Sénégalais à l'impératif d'appliquer scrupuleusement les mesures de prévention individuelle et collective. Le Sénégal, confronté à une seconde vague explosive et meurtrière de Covid-19, chope le pire virus du corona. Vox Populi alerte ce variant britannique est le plus virulent et le plus contagieux. Il a été détecté à Dakar sur un ressortissant indien. Le Sénégal a ainsi la réponse à la rapidité de la contagion à la Covid-19 dans le pays depuis le début de l'année. Peur sur le Sénégal, ce variant britannique est chez nous, rapporte Le Quotidien, car plus contagieux, ce variant est plus mortel. Devons-nous parler se demande Rémi Quotidien, qui répond par on ne le pense pas, parce qu'il ne sert à rien de paniquer. Il faut aller vers la zéro tolérance et mettre toute notre attention sur le respect des mesures barrières. Pandémie du coronavirus au Sénégal, hausse de la létalité, c'est l'hécatombe, d'après l'Observateur, avec 204 morts en 28 jours. L'Observateur propose une série de reportages dans les cimetières de Touba, Yoff, Saint-Lazare, Dangou et Tolpero. Il signale que le nombre d'inhumations par jour a presque doublé partout. L'Observateur alerte quatre nouveaux variants du virus et non un sont détectés au Sénégal. Sénégal, classé 9 en Afrique et 36e mondial des pays ayant le géré la pandémie, informe les échos. Parlons toujours de la propagation de la COVID-19 avec l'enquête qui lui consacre un dossier, l'université en ébullition et dans tous ses états. Pour professeur Ibrahima Dali Diouf de la FASEC, l'État doit mettre les moyens, sinon nous allons droit dans le mur. Le coronavirus et les accidents font des ravages. 26 morts ont été recensés en 48 heures au Sénégal. Titre, tribune, un grave accident fait 10 morts. La Covid est déchaînée avec 13 décès à Rodaba. Le bilan s'alourdit avec 3 morts. Et toujours selon Tribune, À Toubatou, le directeur d'une école est emporté par le virus et deux enseignants contaminés. Résultat, les cours sont suspendus. En sport, élection du président de la CAF, Macky déploie sa diplomatie pour Augustin Senghor, informe les échos. Les ministres Matar Ba et Abdoulaye Sow et l'ambassadeur itinérant El Diouf envoyés en Mauritanie hier et maître Aïssata Tall s'y met. La Gambie et la Guinée-Bissau dans la poche, le Maroc hésite et le Mali valse. jour de sport avec Stade le quotidien du sport, Sadio réveille le champion, Liverpool, le Sénégalais est buteur et passeur décisif. C'est le 70e but chez les Reds. Mané dépasse Luis Suarez. Terminons par sunu lomb bourreau des Pikinois et Fassois, Balla décime Pikine alors que Modou brûle face. Dans certaines écuries de la place, il y a des lutteurs qui font des razzias à chacune de leurs sorties et c'est le cas de Balla et de Modou C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture.